bisimilah sëriñ di delloo sant yàlla bu baax ci jotaay bi nga xam ne sama waajur ci tool bii la nekkoon nekkoon ceeg ñoom ba niñ ko noppee gis ginnaaw bi ñoom nag ñu wéyal ko ba mu agsi fii mu àgg tey muy al azhar biir yi ñu ngi ñaan yàlla mu gën a nangu liggéey bi te gën leen a defal tawféex ba fa ñu bëgg mu àgg fa moom liggéey boobu Cheikh Mouhamadou Moutada sumboon jàmbaar ja góor yàlla ga yàlla na ko yàlla àggale fa mu fu kawe ñopp ci daraja Sëriñ Tuubaa ginnaaw loolu ngir njëkkante waxtu wi thème bi ni ngeen ko xamee mooy xarbun daruus bayna alxadimi wa rajim xeex bu méttee méttee métti boo xam dafa dox diggante sëñ bu mag bi ak seytaane ni ko Cheikh Mouhamadou Moutada waxee itam biñ ma ko waxee li ma ci dajale rek mat na ñaari téeméeri xët bi ma wàññi wàññi am naa téeméeri xët ak sukub nangam moo tax loolu lépp du saxaj waaye dama koy tënk insha allahu taala yàlla def na tawfeex itam ginnaaw ay boroomi xam-xam ak ay jànkat ñoo fi ne du ma sonn ci tekki benn bi maraajeex itam du ma ci sonn insha allahu taala ma njëkk wax ne seytaane doomu aadama la amal jafe-jafe seytaane iblis buñ doon wax mooy kan mën nañ ne borom fathul baari bu muy ibnu hajar al asqalaani dafa wax ne ibnu abi dunya moo nettali ak tabaraani wax ne turam dëgg-dëgg iblis lañ ko wax waaye bu mu nekkee ca malaayka ya azazil la tuddoon ginnaaw bi lañ ko woowee iblis bokk na ci turam nag alxaaris ak alxakam dàkkante la mooy abu murrata am ñu wax ne dàkkante la mooy abul kurubiyin muy jëmm joo xam ne dafa am jafe-jafe ak doomu aadama moom bu méttee méttee méttee di dund ak ñoom xeex bu metti boo xam ni bu tar la te te te te te doy waar xeex boo xam ni dakk mukk waxtu wu ne mi ngi ci cong ak nu muy waajale nu mu leen saagagal ndax suñu borom moo ko fi bàyyi may ko kattan itam ngir lam waxoon te dinaa ci ñëw léegi ne dana ko yàqale doomu aadama yi wane ne doomu aadama yeyoowu cër bi leen yàlla jox loolee la bëgg a jëmmal loolu suñu borom moo ne ko nekk ci alxuraan moo xëy ne wa id qaala rabbuka lilmalaikati inni jaacilu fi lardi xalifa qaalu atajcalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa naxnu nusabixu bixamdika wa nuqaddisu laka qaala inni aclamu ma la taclamun wa allama aadama lasmaa kullaha summa aradahum ala almalaika fa qaala ambiuuni bi asmaai haula in kuntum saadiqin ba ca aay yooyu ngeen ko xamee ni aay yooyu dañ ci dégg ne suñu borom daa déclaré wax malayka yi ne leen am na mbindeef mooy mu may waaj a amal mbindeef mi te suuf laa ko yóbbu am na liggéey bu mu fa war a def malayka yi ñoom biñ déggee wax ji gis nga mel na ne dañoo xaw a am ragal am tiit ci kiñ fi waaji indi ci suuf si ndax suuf si njëkk doomu aadama li fi ñëw dafa am ñu fi nekkoon mooy jinne yi jinne yi dañ fee nekkoon yàq fi yàq bu rëy rëy rëy ba yàlla yabal ñu leen fi jëre borom anwaaru tanzim wa asraaru tawil muy bada bay daaw yi bon tafsir bi wax na ne iblis moom la yàlla waajal booba mu xeex ak jinne yi doon yàq ci kaw suuf ba jëre leen fi dàq leen ñu dem ci géej ya ak ci xur yenn yi jëli leen ci tukki loolu it boo demee borom taarixul xamis mu ji Xuseyn ibnu Muhammad Diyaar Bakri wax na loolu wax ne Iblis dafa jaamu yàlla lu yàgg ba am tawféex yi sell te goo xam ni yàlla ci la ko waajal ngir mu dàq xeeti jinne yi nga xam ne ñoo ñoom ñoo ñoo moom ñoo bokk xeet ci wax ji gën a wér ba jëli leen malayka yi dañ moo tax bi ñu déggee suñu borom ne bëgg naa indi mbindeef ci kaw suuf dafa am dafa ragal yàq googee amoon ci suuf dil si waat tooñaange gi nga xam ne moom la jinne yi nekkoon la ragal mu ñëw ngeen ne jinne mbindeef la moo xam ne yàlla da ko bind nekk waayam di suuf sii nii nu nekk bi ñu fi yàq yàq bu rëy ci leen fi suñu borom jële jaare ko ci iblis moom yi ak ñam àndaloon ñu dàq leen ah waaye ba léegi génnuñu suuf si maanaam jinne am na capacité génn suuf si tuuti waaye fii mooy nekk waayam du ko sori mën na dem ci beneen planète ci wax ji gën a wér ci borom xam-xam yi jullit ñi iblis itam taw sax bi mu amoon ci jege malayka yi mooy dafa am xéewalu jaamu yàlla diir bu yàgg am kenn te gu rëy itam ci jamono jooje nekk gum nekkoon ci diine pëstéefam ci diine moo taxoon yàlla tànn ko boole koog malayka yi ba mu mën a àgg fa boog di nekk ca malayka yi bokk waaye moo tax yàlla tànn ko ci mu xeex ak mbokk ci seytaaneem ak jinne yi nga xam ne ñoo fi nekkoon di am moo tax bu suñ borom waxee ne damay indi bindeef mu bees mu bokkut ak yéen ñëpp du du doon malayka waaye du doon jinne dana am cër ci malayka mooy nuuraaniye boo xam ne nuuraaniye malayka la doon waaye du bokk ak mbindeef yi nekkoon ci kaw suuf yi dem mbindeef mu bees sax li mu ko waxee iblis ci boom bokk na ci moom it li ko gën a tiital ndax jàppoon na ne moom moo yeyoo xilaafa nekkal suñu borom ci suuf moo tax loolu yombut ci moom suñu borom it bu ngeen seetloo jox na leen diir bu yàgg boo xam ne dafa déclaré ne dinaa dinaa am na lu may waajal mbindeef lay doon mu may yóbbu ci suuf dooga nag am bis boo xam ne ci la dajale malayka yépp ngir leeral leen ko leeral la noonu na leen itam la tax mu tànn ko mooy fa ida sawaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuxi mala mi def lay doon moo xam ni sama ruuxu bopp boo ko dëgg jëmmi suñu borom dara nag ruux bi suñu borom sàkk waaye da ko askan ci boppam askanu tasrif ah moom la ko askan bi ci boppam wax ne sama ruux ko laay def ci moom loolu la wuuteeg yeneen mi def yépp moo tax bis bi nga xam ne ci la yow mu taxat bi suñ borom wax malayka yëpp ñu sujootal aadama mooy sujootu nuyu ko ak màggal ko ak jox ko cër wa id qaala rab id qaala rabbuka lil malaikati inni xaaliqum basharan min tiin fa ida sawaytuhu wa nafaxtu fihi min ruuxi fa qa'uu lahu saajidin fa sajada al malaikatu kulluhum ajmauna illa iblis istakbar wa kaana min al kafirin ba aayee jeex suñ suñ tubaa daana wax ne suñ tubaa mas naa bind ñeenti alif wax ne alif ku ñëkk mooy iblis yan nu yàlla musu ci moom alif ak ñaareel bi mooy ka yuridu an yubtila tawxid dafa bëggoon a yàq tawxid ndax nu mu wut a def ndigalul suñ borom alif ak ñetteel gi mooy ak sayidu jibril taradahu ak sayidu jibril jibril moo ko dàq ba nga ko dàqee nag moo tax jibril kaana awwala man sajada mooy alifum ñeenteel bi moom la yàlla tawfeexal mu nekk ci njëkk si jóotal suñu borom tabaraka wa taala gën koo jëkk koo nongul ndigal loole kon malayka yi dañuy seetlu ñoom bi suñu borom waxee ne dinaa fi indi mbindeef dañoo mel ne lu xaw a am jaaxle ci mbindeef buñ fi indi ndax ñoom dañoo xoole seen bëtu bopp wa nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu lak ñoom loolu lañ xam mooy sàbbaal yàlla ak def ndigal yàlla te bëgguñu xëy na yéenewuñ suuf si bindee di fi ne muy yàq wala muy bañ digali suñu borom kon ñoom seen bët lañ xoole ak li war a am ak li yàlloon teg jëmmi suñu borom ak màggam waaye suñu borom wax na xikma ma inni jaailun fi lardi xalifa am xalifa boo xam ne moom la moom moom moom la tànn ngir am lum namb am lum jublu am lu tax mu indi ko léegi nag jotaay boobu yi nga xam ne mooy tax yowmu taxat bi bi leen digalee bi sujjóot malayka yëpp sujjóot iblis lànk iblis ñaari wax am na ci am na ñu ne ci malayka yi de bokk ibnu abbas ak ñeneen wax nañ ko waaye wax bi gën a wér te borom xam yu mujj yëpp saxal ko mooy kaana min al jinn fa fasaqa an amri rabbi jinne yi la bokkoon xëy na ak kell teem moo ko yóbbu woon ci mën a dem ca malayka yi waaye bokk waaye lu mën a xew bi mu lànkee ci jotaay boobee ñeent ci mbir daja daje mooy dafa rot ci bëtub suñu borom suñu borom moom da ko mere rëbb ko boole ci ila yawmi ñaareel ba mooy ca la iblis it mere doomu aadama ndax moo sabab suñ borom sori ko ñetteel ba itam mooy suñ borom ba jotaay boobee soo daa dëkkal aljana aadama alayhi salaam wutal ko fa itam jandandoo muy soxna xawa iblis ci jotaay boobu bañ ci jógee ca la jógee ci gën jaa jege yi suñ borom dem ci gën jaa sori suñ borom tabaraka wa taala suñ borom da ko wax ci ay yu bari fahbit minha fa ma yakunu laka an tatakabbara fiha faxruj innaka min asaaxirin torox nga la ko suñu borom wax wa kaana min alkafirin mooy yow weddi nga yàlla ndax digal naa la nga lànk qaala faxruj minha fa innaka rajim wa inna alayka laanata ila yawmi din yàlla rëbb ko itam xaala xaala xuruj minha madhuma madhura kon foofee la toroxe moom suñ tubaab daana wax ne iblis weddi gi mu weddi bokkut ak weddi daana wax ne ñeenti weddi moo am weddi gi iblis nag moo ci yées ndax moom yaarifu alxaqa yaarif yaarifu allaha bi qalbihi wala yuqirru bi lisaanihi mooy kufru juxuut la ko suñ tubaab an yaarifa allaha bi qalbihi wala yuqirru bi lisaanihi ka kufru iblis maa ngi ci majmuu nuurayni iblis it foofee la tàmm di liggéeyam aadama ginnaaw suñu borom tànn na ko defal ko li mu ko defal jox ko cër bi mu ko jox malayka yëpp mën a jox leen ko cër ci kanamam te moom mu daa jàppoon ne moo gën aadama ci la tàmbalee moom yitteem yëpp di yàqal aadama fa mu njëkk a tàmbalee mooy génne ko àjjana yitteem moo doon génne yaa aadama dafa def àjjana fekk ko fa tàmbali di ko fa jéem a génne ak di ko xirtal ci lu ko fay génne yaa aadam hal adulluka ala sajaratil xuld wa mulkin laa yablaa léeg-léeg mu ñëw fa waswasa lahuma seytaanu li yubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawaatihima wa qaala ma nahakuma rabbukuma an hadihi shajarati illa an takuna malakayni aw takuna min alxaalidin aadama ak malayka yëpp xamoon nañ mbindeef mu yees moom ku fi yàgg lay doon demagul xamoon nañ ne bachariya doomu aadama yi ñu fi yàgg lañ doon waaye iblis dafa ñëw di jax-jaxal aadama di ko wan ne ko ngir nga sax nag sa nekk yëpp nekk nga nekk ko fii ci aljana garab bi yàlla yàlla tere di ci mos nekk te di ko wax wa qaatamuhuma inni dakuma la mina naasiriin di giñ fa dallaahuma bi xurur di wax garab bi yàlla tere woon kon foofee la xeex bi tàmbalee bu wér a wér a wér seytaane foofee la njëkk a gañe yi def ndax fexe na ba def luy tax sunu sunu maam aadama wàcce wala bañ a def ndigalul yàlla ca àjjana ba suñ borom jëlee ko fa indi ko fii suuf aadama itam bi mu ñëwee alayhi salaam bokkut ak iblis moom dafa tuub dellu ci suñ borom rëccu faj summa jtabaahu rabbuhu fa taaba alayhi wa hada suñ borom tànn ko jéggal ko itam bi mu ñëwee ci suuf itam ci la mission tàmbale itam di di di feeñe mooy aadama ak i sëtam seen yëngu bépp fii ci suuf lañ ko war lañ koy defee waaye iblis ak sa tamit seen suuf seen yëngu bépp fii lañ koy defee mu def xeex boo xam ni foofee la tàmbale xam ngeen ne iblis ci jotaay ba bañ leen di sàkku ci ñoom ñu sujjóot dafa woon ne suñu borom bi mu demee ba xam ne moom dàq nañ ko te dàq nañ ko dana rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun moo bëgg nga bàyyi ma fi ba keroog bis penc suñu borom nungulu ko lépp ndax suñu borom da ko xamal ne ko innaka min almundarina ila yawmi alwaqti almaalum ba jëmmi jamono daal waxtu bu ma neexee rek ma jële def waaye lam sàkk woon moom suñu borom def lu ko def suñu borom may ko kon moom aada moom iblis mu nekk fi di yàq ci jotaay ba itam fala tàmbalee ndax dafa wax suñu borom rabbi bi ma agwaytani la uzayyinanna lahum fi lardi wala uhliyannahum ajmain bi ma agwaytani wax suñu borom ne koy lii lépp yaa ma ko teg maanaam bëgg a dindi dégg nga am responsabilité dem ci lànk gi mu lànk ndigul suñu borom iblis foofu la tàmbalee dafa giñ na giñal suñu borom fa bi izzatika la uhliyannahum ajmain giñ naa ci sa mag gi ne ñëpp dinaa ànd ak ñoom dem sawar ëllëg ni ko sëñ bi wax du ma fi bàyyi kenn aadama ak sëtam kenn du mucc insha allahu taala suñu borom ne ko idhab fa man tabiaka minhum fa inna jahannama jazaaukum jazaan mawfura yaa xam demal foo mën a jëwit ku la topp daal yéen a ànd dugg sawara wastafzis man istataata minhum bi sawtik jëfandikul communication wa ajlib alayhim bi xaylika wa rajlik jëfandikoo waruwaay yi ak xoy-xoy adduna yi wa sharikhum fil amwaali wal awlaadi mën ngaa dugg ci seen biir it lu la neex mën nga koo jëfandikoo ci ñoom waiduhum wa ma yaiduhum seytaanu illa gurura dig leen lu la neex yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne suñu borom moo ko ko may ay ay nga xam ne kon buñ xoolee aaya yi ci rot dañ ciy gise ne xeex bi fii ci adduna lay amee leer geeg sawara gi fii la ñuy xeexal tuyaaba yi ak ak mbugal yi itam lépp fii lay sosoo aadama itam faw bu am ak njaboot ci suuf loolu des na ko gis ci aay yëpp ci lañuy gis itam ne am na ci biir njabootu suñu maam aadama ñoo xam ne iblis mënul ci ñoom dara moom loolu suñu borom xamal na ko waaw inna ibadi laysa laka alayhim sultaan ci lañuy gisee ci aay yooyu itam ne iblis mission mooy tasyil ak irwa mooy rafetal la li yàlla li naqari yàlla ngir nga def ko loolu lay defal doomu aadama ak xiirtal leen ci li naqari yàlla ak itam toog ci kanam yoon wi nga xam ne mooy yoonu suñu borom ngir kenn du ko romb dem ca yàlla qaala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siraataka almustaqim dinaa toog ci diggu yoon wi galen benn waaye du ma fi jaar kenn du fi jaar dem jëm ci yow moo tax ñi ñi suubu ca jëm ci yàlla ñooñu la iblis gën a sonal ba tey ci aay yi ci root yëpp buñ ko boole dañuy gis ne sëti aadama yi itam aadam iblis itam am nay gaay am na mbooloo am nay sët am nay jinne ki seytaane yoo xam ne ñoo ko jàppale ak ci nit itam waaye ñoom ñëpp nag sawara lañ jëm loolu lépp dañ ko dégg ci aay yooyu iblis la mu njëkk a def mooy daa taxawal gouvernement daa am mamlaka boppam wa junuud iblis ajmaoon wut ay soldaar itam ulaayka xisbu seytaan wut kuréelu boppam boo xam ni maanaam iblis ku yewwu la te bari pexe lam njëkk def mooy organiser bi biiram seytaane bi gën a mën a yàq muy gën a jege iblis nit ñi noonu loolu mën nañ koo dégg ci te yëmut ci loolu dafa wut arafu boppam ak lu mel ni téyi suñu borom yi mu am yëpp da koo def nataali boom yoo xam ne yow mën na da ko wan doo xam yow luy aras mu ëllëg lii muy aras loolu mën nañu ko dégg ci xadiisu ibnu ibnu sayyar bi imam muslim net li nga xam ne ñenn ñi day jàpp ne sax mooy dajjal lu mën a xew booba xale la su yónente bi romb ko ñëpp daw moom daw yónente bi ne ko atashhadu anni rasulullah ndax yow gëm nga ne seede nga ne man maay ndawul yàlla rasulullah ibnu sayyar ne ko yow it atashhadu anni rasulullah yow it ndax seede nga ne maay ndawul yàlla maay rasulullah yonente bi ne ko man day amantu billahi wa malaikatihi wa kutubi gëm naa yàlla gëm malaayika yi gëm li yàlla fa suuf gëm lépp ne ko nag maatara yow looy gis waa ji ne ko ara arsan ala al maayi xawlahu xayaat waxtu wun dinaa gis aras aras joo xam ne ars boo xam ne gàngu naay boo xam ne ca diggu ndox ma la ne ay ay ay jaan wër ko yonente bi ne daaka arshu iblis ci riwayat ahmad loolu mooy arshu iblis yow moom ngay gis kon iblis dafa am arasu boppam imam muslim nekk na beneen riwaaya boo xam ne dafa wax ne inna arsa iblis unti bi moo ko inna arsa iblis ala albahri fa yab'athu sarayaahu fa yaftinuuna annaasa fa a'zamuhum indahu a'zamuhum fitnatan iblis dafa yor gàngu naayam yor aras ci digg ndox ma riwaayaat yi ñëpp ne jaan moo ko dugal ci biir arjana ngir mu mën a jaxjaxal Seydina Adama loolu li koy firndeel mooy xadis bii nga xam ne wér na moom te ay jaan yoo wër arasam la mu yebal nag ay gaayam nag ci biir nit ñi bu ko defee ci gën a mën a yàq gën a mën a dawloo nit ñi gën leen mën a xiirtal ci lu bon kookee moom lay dañ ci gën a bëgg moom lay gën a fonk iblis it jëmul loolu jëmul ci loolu jëmm jure boole na laa genn seytaane boo juddee rek mu boole laa genn seytaane boo xam ne moo lay yàqal moom la koy tax a jóg kilifa lay doon kilifa gu mag gis nga yonente yi iblis ginnaaw jege woon na malayka yi foofee la xam pexe foofu la baree xam-xam ku bari xam-xam la te yow te xam pexe yi nga xam ne moom la mën a yàqale doomu aadama moo tax yonente yi sax leen day day jéem ci ñoom wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa ida tamanna alqa shaytaanu fi umniyatihi yonente bi bu jibril ñëwee wax ko dara ci dina fexe ba sànni ci biir wax yi dara loo xam ni mbiram lay doon bëgg yonente bi fabbi ko wala mu wax loo xam ne bokkut ak lu yàlla bëgg li yajala suñu borom wax li yajala maa yulqi sheytaanu fitnatan lilladina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa inna zalimina fi shiqaaqin léegi nag mu am lu mat a lu mat a xam loo xam ne ci dañuy xamee bu ñëwee ci kaw sëñ bi lan moo taxoon iblis jàmmaarloo ma iblis nekk mooy Sayyidina Muhammad moo rëpp la moo moo jëmmal leeru ko suñu borom tabaraka wa taala mu de soy ko yëpp maase nañ ci wax ne ambiyaawu ya ko fi jiitu woon ay nuwaabam lañ dañ ko fi wuutu woon rek ndax ku ku ko ci fekkoon jamono da nga ko war a gëm loolu alxuraan wax loolu leer na bu ko defee ñii ñëw ginnaawam itam ci ay awliyaawu ñëpp ay nuwaabam la ñu doon kon mooy ki jëmmal leeru ko suñu borom tabaraka wa taala moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu it leer na ci waxi sëñ bi naa ci ay nusus yu bari damay bañ ma gudd sëñ bi dafa wax ne sëñ bi dafa mës a rëdd ñaari ñaari rëdd bind fii inna bind fee innama daana ñaari xarafa ngi yoo xam ni maanaa ngi ci mu mu sew mu mat a xam wax ne inna seytaana lakum adu loolee de li muy tekki mooy li liñ ci mën a déggee muy maanaam mu sew mooy anna iblisa laanatullahi alayhi kulliyatuhu kulliyatuhu im imtala zulman wa zulmatan iblis léppam day lëndamu kefe sayidna muhammad nag léppam di leeru kefe moo tax ñaar yu mënewuñ fi ne booy tudd yàlla leer gi bàyyi ko ci tudd yàlla gi moom la iblis ragal muy leeru suñu borom boobu tabaraka wa taala loolu suñ wax na ci lu bëree bëri wax na ne aljannatu nuur wannaaru zulma wa rasulullahi tahirun mutahirun li xizbillahi almuflixina ila aljanna wa iblisu almustaadu minhu mutadannisun mudannisun li xizbi cheytaani alxaasirina ila annaar aljanna bërëb bu leer la rasulullahi mooy buntub leer bi nga xam ne boo jaaree ci moom ca nga fay demee sawara bërëb lëndëm la boo xam ne iblis ak seytaane mooy buntu ko ba nga xam ne ku fa jaar da ngay demee loolu dañu wax na ci lu bëree bëree bëri wax nañ sayidna muhammad imtalaa xayran wa nasihatan noonu la ko waxee ci iblis aduwullahi imtalaa charran wa adawatan lépp lu di ay iblis a ko jëmmal ak seytaan lépp lu di mbaax itam ak leeru suñu borom sayidna muhammad moo ko jëmmal loolu dama ci bañ guddal waaye indi woon na ci nusuus yu bëri bëri na lool ci waxi suñu sëñ bi àgg na ci wax ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aqaiduhu wa afaaluhu mutawajjihatun ila allahi wa muwajjihatun ilayhi yonente bi lépp ma baax ay pas-pasam baax na ay waxam baax na ay jëfam baax na ndax dalay ñor di jëme la ci suñu borom tabaraka wa taala ca la wax itam ne iblis aqaiduhu cheytaan aqaiduhu wa aqwaluhu wa afaaluhu wa axlaaquhu mutawajjihatun ila annaari wa muwajjihatun ilayha loolu li ñu ci déggee mooy kon iblis moo jëmmal ak lëndëm ak ngor ci suuf Seydina Muhammad mooy jëmmal àll ak leer Seydina Muhammad am na diir bu mu ñëwee waaye njëkk mu ñëw ay yonente ñoo doon ñëw yoo xam ni ñoo ko fi wuutu woon ginnaawam itam ay awliyaawu yu wuute ñooy ñëw waaye ku ci itam Seydina Muhammad day jëmmal loolu ngay dégg kon Sëriñ Tuubaa bi mu fi nekkee jàmmaarloo di Iblis jàmmaarloo moom Iblis ku bari cax la Seydina Yaxya alayhi salaam wax nañ ne iblis mas na koo feeñu ne ko dama laa bëgg a dabeer mu ne ko yow kay mënoo maa dabeer yow kay da nga naan bëgg nga def lu bon bu lenn daal la la bëgg a laaj mooy nan ngay yàqale doomu aadama yi iblis ne ko doomu aadama yi day ñett xeet lañ am na ñoo xam ni ñoo gën a metti ci ñun mooy ñoo xam ne naftinuhum wa natamakkanu minhum wala nadruku minhum xaajatana ñoom léeg-léeg danañ leen jekku di leen fitnaal ba jàpp ne mën nañ ci ñoom dara ñu jekkee ko rëccaat mooy ñu dellu ci seen borom xaaju ñaareel bi nag mooy ñi nga xam ne moom dañoo fegal seen bopp ñoom ñoom moom ñun ajowuñ ci ñoom ñuy liggéey ci ñoom ndax ñoo nu liggéeyal ba ñu war a def ci ñoom ñoo ko defal seen bopp daal ne foofu fii ay dinaa bi man filatil kurati fii ay di sibyaan yi seen xale yi ni ñu yore ab bal di ko sànnante nu mu leen neexee noonu lañ noonu lañ leen def gaa yi ñetteelu xaaj bi nag mooy yéen ku mel ne yow ku yónnante yi nga xam ne yéen amuñu ci yéen bunt ñooñu la mi ñoo ñëw mi ngi ci lu gudd la mi ngi ci tanwiirul azhaan Seydina Yaxya ndax gën a am na solo ma àggale ko rek Seydina Yaxya ne ko ndax man nga maa jekku benn yoon wala nga def ma lenn lu bon mu ne ko am na guddi goo xam ne da ngaa nekk di xéewlu ma ñëw neexal xéewal gi yow ba xéewal gi ci yow ba nga jël ci loo xam ne ëpp na la nga ci daa jël keroog day guddi googu moom naafi la woon ca guddi Seydina Yaxya ne ko insha allah duutuma lekkati nag kon ba suur moom xalaatuma ko ci mag dund mu ne Iblis ne ko ma ni duutuma lay biir doomu aadama kon iblis kilifa ya ñoo koy tax a jóg ak mag ña ak gaañu dëgg-dëgg kenn ku ne ci nun ñi nag boole na laak benn seytaane moom la yonente bi wax ne ma minkum min ahadin illa wa maahu shaytan qulna ya rasul allah wa anta ya rasul allah qala wa ana illa anna allah azza wa jalla aanani alayhi fa aslam am na riwaaya boo xam ne wax ne fa aslamu minhu mooy riwaaya imam muslim moo nekk li xadis boobu mais nit ku ne am na seytaane bu la bu taxoo yow ñu ne ko ba ci yow rasul lay mu ne ba ci man rasul lay saa moo tax suñu tubaab itam léegi ci njëlbeenam daa am seytaane bu ko iblis booleel boo xam ne moo taxawoon ak moom dana ci ñëw léegi ndax bañ a jiitu kon nu ñëw ci